mbokki Sénégal asalaamaaleykum diaspora man maa ngi tudd Cheikh Gueye maire Dieuppeul Derklé taxawal fii coalition Khalifa président Khalifa Ababacar Sall moom ci boppam moo fi waroon teew mais xam ngeen ni bi ñu commencé processus ba léegi ñu dëgmal campagne électorale bi dañu defoon tirage au sort pour xool candidat yi keñ lañuy jàll ak ban waxtu la ñuy am au niveau de la presse ñàkkul ni jamono yi mu ngi ci yoon bi di def enregistrement mu ne ni nañ ko fi teewal ànd fi ak le maire Abdou Aziz di indi kàddu xalifa Sall kàddu xalifa président pour wax ni li ñu dégg ci président la république mënuñu ko nangu mënuñu ci ànd ndax du kàddu yooyu moo war a jib ci jamono bi ñu toll réew moo nga xam ni dafa dëgmal élection ñu jaar fa ñu jaar yépp ba ñu ni c'est à quelques heures la campagne bi di ubbi nga ñëw indi ay mbir bëgg ci langaamu naan da ngay reporter élection yi loolu xel mënu ko nangu Sénégal dañ ko daan bàkk naan Sénégal réewu jàmm la Sénégal dañ ko daan bàkk di wax chantre de démocratie en Afrique Sénégal dañ ko daan bag naan contrairement à d'autres pays yi xam am coup d'état yéen amu leen coup d'état mais tey jii boo nekkee ci réew mi mbaa nga génn bitim réew dañu lay dab di la woo naan la lu xew seen réew yu leen dal naam amul leen coup d'état militaire waaye tey lii xew mën nañ ko tuddee coup d'état institutionnel lii mooy indi njàqare ci réew lii mooy indi kaw ci réew moo tax ñi ci war a wax nañ ci wax ñi ci war a jëf nañu ci jëf loolu tax xalifa président ni mi ngi woo les forces vives de ce pays mi ngi woo les patriotes de ce pays mi ngi woo les démocrates de ce pays pour que ñu ànd doon benn boule pour faire face à ce que Macky Sall veut faire c'est-à-dire forfaiture lii xel mënu ko nangu nit mënu ko nangu maa ngi doon waxtaan ak léegi benn góor mu may laaj lii lu mu doon ma ne ko góor gi boo ko doon seet ci misaal dafa mel ni ay jullit yu jàpp ba set waxtu julli jot ñu war a ñëw julli imaam bi ñëw ni tey julli amul mën nañu julli loolu ndax jullit mën na ko nangu déedéet ma ni faw ñu julli bu ñu julliwul ci jàkka ji daañu julli ci jël jàkka jële waxtu julli dafa jot te loolu may tudde waxtu julli moom mooy campagne électorale bi nga xam ne moom la ñu dëgbal dara mënta tee ñu dugg ci biir campagne bi wan Macky Sall ni li ngay wax waxu kasaw kasaw la waxu ko daanju saret la ndax niñ ko waxee amul lenn lu mën a tax ñu reporter élection yi nit ñaa ngi dem ak a dikk assemblée nationale mi ngi def liggéeyam conseil constitutionnel mi ngi def liggéeyam liggéeykat yi ñu ngi dem seen bérébu liggéeykaay jàmm moo am ci réew mi lan moo sabab ñu naan dañuy reporter élection yi bëgg toogaat ci nguur gi bëgg yokk mandaawam loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba looloo tax ñuy woo bépp candidat ci élection présidentielle mais au-delà des candidats le peuple sénégal debout comme un seul homme pour faire face à cette forfaiture de Macky Sall nous disons non au report de l'élection présidentielle nous disons oui pour le respect de la constitution jërëjëf salaamaaleykum mbokki Sénégal sénégalais